c'est Al Haïbou TV la télé qui te moo lay xalaat loo Al Haïbou TV mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk daara Abdoulaye Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci subak ajjuma ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu ajjuma nangul ñu suñu jaamu yàlla yóbbalu tey bi rek macha allah dafay ñëw ci taxawaay yi muy def ci àjjuma yi ci ñaan yu am solo yi rek nii wa fi sabaaxi hada al yawm yaa rabbi iftax lana abwaab alsaada wa altumanina warzuqna quluban xaaliya min alhammi walxusni macha allahu ni yàlla ñu ngi lay ñaan ci subag bis bu màgg bii di yowmul jumaa subag àjjuma ji ñu xëy macha allah yàlla ñu ngi la ci ñaan te yow mi ñuy ñaan xam nañ ni ku bëgg ku la may ñaanal ki am dañuy wax ni faaqidu shay'in laa yu'tihi nit ki li mu amul mënu koo joxe moo tax ñuy wax ni bukki bañ ko laajee kan moo nay dafa indi ku amul ñun ko lu tax mu ne laaj leen ko bu ngeen ko laajee du du leen jox ndax yorul kon ki yor moo jara ñaan te ki yor mooy suñu boroom ñun ko yow yàlla ñu ngi lay ñaan lu ñu lay ñaan yàlla yàlla nag ñu ubbil bunti xeewal ak bunti bonheur ak bunti réussite yàlla nag ñu ko ubbil yow suñu boroom buntu xéewal ak buntu bonheur ak buntu réussite yàlla na ñu ko ubbil ci ajjuma ji macha allah benn ñaareel bi yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu mbay ñu dal ñu amuk dal dal dara bañ ñoo dépassé gis nga dal bu ko jullit amee dundam day neex situation du la jaaxal lenn du la jommal boo xëyee sax mu leer la ni dépense boo joxe sa kër sax amoo ko boo dalee loolu du la déranger di nga xam ne borom bi subhanahu wa taala maa bay na ashiyatin wa duxaaha lu ko neex mu def ci bu ko neexee mu bette wat la xéewal ba mel ni du yow yaa ñàkkoon lii dal mooy maye loolu situation yu mu compliqué boo tawatee dal boo amee jafe-jafe dal bu sa njaboot ne amee jafe-jafe nga dal dund dund gu dal boo xam ni doo stressé wu doo def dara yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu ko defal waaye yàlla nag ñu may xol yoo xamante ni day féex lool ci lépp loo xamante ni suusi la ak lépp loo xamante ni njàqare la yal nag ñu may xol yu féex ci loolu ñu yëg ni amuñu dara lu ñuy teree nelaw loolu dafa am solo ñu yëg ni suñu xol yi féex na féex goo xam ni bu ñu tëddoon léegi suñu bëggee nelaw dinañ nelaw ci nelawu sago yow suñu borom subhanahu wa taala yal nag ñu defal loolu ci bis bu màgg bi di yowmul jumaa kon su ma doon ñëwaat ci ñaan bi damay wax ni mooy yaa rabbi iftax lana abwaaba alsaada wa altumaniina warzuqna quluban xaaliya min alhammi walxizn yàlla nañ ko suñu borom defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum mbokki internet yi safoo émission bii di euh, réinsertion euh, sociale euh, réinsertion sociale tey ñu ngi waxtaanee li olof Njaay di wax ak dal mbokk mi oustaz Abdourahmane Gueye andi nga thème bu doy waaye nag ñu xuus si rek wala ñu jéem xuus si sunu kem kàttan wala bokk lu nu si man ndaxkat li nga xamante ne ni euh, moom la ñuy wax ku dul tukki doo xam fu dëkk neexe looloo nu indi fii si jàmmalaay siin gannaaw bu ñu jógee fële nga xamante ne ni moom mooy tefesuk yoof korok ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy hypocrisie waaye nag gannaaw ba son excellence le président de tous les sénégalais monsieur Macky Sall ubbi na li nga xamante ne ni moom mooy yoon yi tey émission bi ñu ngi leen koy defaree ci ferme bu ñuy wax jàmmalaay siin li ngeen di gis ni ay citronnier lañu ñu nekk nag garab yoo xam garab yoo xamante ne ni ay garab yu fonk ndox lañu ay garab yu bëgg ndox sax voilà loolu benn parenthèse la woon waaye nag li nga xamante ne ni mbokk mi moom mooy ak dal maa koy wax si njëlbeen gi ma ne bugguloo sa jabar dugg àjjana yow nga def si biti wala sa doom dugg àjjana yow nga des si bili biti wala yow nga dugg àjjana sa doom des si biti wala sa njaboot daal des si biti ku amoon lu la gënal boo duggee da ngay dugalaale képp ku nga xamante ne ni bu dulee sax sa mbokk waar koo xam wala bëgg nga yéene ñëpp ñu dugg àjjana parce que yaakaar naa ne bu ñëpp dugg àjjana nga dugg àjjana du yàq dara sa palaas du tere yëpp nga xaj fa nga xaj dama bëgg a wax ci ak gàttal rek ne tey oustaz Abdourahmane Gaye point bi nga xamante ne ni moom nga laal point bu doy waar la point bu sensible la parce que man su ma amee jàmm te samay dëkkandoo amuñu jàmm jàmm jooju noonu du safe wala samay dëkkandoo ñàkk jàmm man ma am jàmm jàmm jooju noonu du safe problème ba mën na dem ba law ba egsi si man laal ma niki rek màgget ga nga xamante ne nii daa dëkke woon këram aw nagam aw fasam kër ga ñu ji lool di lakk ñu ne suñu yoon nekku ci lakk ga kër gay lakk ba rey màgget gi ñu ji lool te moo ne kër ga tàkkul woon de waaye daa daa jaf jàpp lakk kër màgget ga rey ko fas wa naan yoonam nekku sa nag wa naan yoonam nekku si ñu dawal fas ba mu dog dee sa màgget ga dee sa lakk ga ñu daal day jël la nga xamante ne ni moom mooy nag wa daal di koy rey si dëjub màgget ga gis nga rek mbir ni muy laale kii laal kii laal kële moo xam directement la moo xam indirectement la waaye nag gannaaw ba tey ñu ngi waxtaane am ak dal mbokk mi ci jamono bi nga xamante ne ni moom la ñu nekk may wax toujours ne am na ay incidents yu bari yoo xamante ne ni boo ko déggee ndaw a ko def à partir de quinze ans pour nga gis ndaw gi def huit am huit ans def jéeya rey na nit wala dix ans rey na nit lu néew la am na cent rey na nit lu néew la ci gàttal dama bëgg a wax rek ne nit ku nekk. dafa am foo xamante ne ni fa la sa deret di toll muy yëngatu mu am foo xamante ne ni bu fa sa deret tolloo da ngay dal bay mën a digle ak dal mooy li ñuy wax ne c'est l'expérience qui fait la différence dangay dund mbir mu safaane lool ngay gis nit di ko def doo ko yéene lala dal dal la nga koy prévenir di ko santek dal fekk na kat koo xamante ne ni moom ndeysaan yeggul woon ci dimension boobu noonu walla dundul la nga xamante ne ni moom nga dund kooku noonu boo koy wax mbir ma du xam sax la xew moo tax toujours mag ñi dañuy dal da leen di gis dañuy toog ni jëmm di xool parce que xam nañu lu bari gis nañ lu bari dund nañ lu bari moom ngay dégg olof yi di léeb léeg rek naan da ngay gis bëy di ñammi ñammi te bëy bi li mu lekk noonu bay ñammi ñammi moom la xar lekk ne gumma ne mugga donc toujours rek si li nga dund yow si ngay xamee ne ah lii bu yeggee fële safaan lay jur wala lii bu yeggee fële succès lay jur ndam lay jur moo tax ki lay prévenir ki lay wax ki lay daloo dafa nekk loo xamante ne ni lu mu dund la doo dégg ñu naan ndaw gii nii bu asamaan doon wàcc sax mu foog ne mën na ko téye waaw mooy l'âge où l'on ne se doute rien où l'on de rien waaw l'âge de la puberté mooy fi nga xamante ne nii ndaw gi yaramam day tàng deretam day tàng à chaque fois danga gis ndaw gu deretam di tàng ndaw gi di yëngatu kooku mënoo ko dëral parce que si moment boobu la tollu si jamono boobu la toll donc xanaa mu am sens déglu waxtaan bii nii mu daadee moytu lépp loo xamante ne nii daf koy jural safaan parce que kat ñàkk dal moom safaan rek la lay jural mënu la jural jàmm musiba la lay jural bu ko defee bu fekkente ne ni yow déglu nga audio bi nga partagé ko nga xam ne li nga xamante ne ni moom nga nekk présentement di ko sooke nii wala di ko jéem a dox te mu mën a jur fitna nga teg ko ba ci suuf nga xamante ne ni mun na la laal laal ma laal keneen koo xamante ne ni yoonam sax nekk ci woon ndax kat ki ne laan dalal mu ngi lay bëggal sa jàmm lu olof yi di wax naan ki ne sangu sa taar la la bëggal situation nag day toll foo xamante ne ni léeg-léeg yow di nga dal sa njaboot dal waaye keneen jóge si biti nag yëngal sa njaboot ba indil la safaan muy mbir mu doy waar boroom kër la woon koo xamante ne ni moom musiba bu gisi dara mu daadee toxu ñëw fu mel ni àll bu mel ni jàmm day siin moom ak soxnaam ñu dëkk fa ndax kat bugguñu fitna bëgguñu dara loo xamante ne ni luy yëngal musiba la luy yëngal aras la bi ñu ñëwee nag ñu dëkkee ñoom ñaar ci àll bi mu am benn surga boo xamante ne ni dafa rek ñëw bi mu ñëwee ne daal day ut liggéey boroom kër gi ak soxna si ne ah, ay la yëwen ñun dey dañoo prévoir woon ne suñu dund dootuñu si xajal kenn dootuñu si dugal kenn waaw nga jéggal ñu daal wax dëgg yàlla ñun daal fi ñu nekk nii si àll bi nii dañu fee bëgg dund ñun ñaar kese ndax kat bëgguñu xajal suñu diggante kenn moo tax ñu daw nit ñi daal di ñëw dëkk fii waaje ne ay la kon baax na maa ngi dem dama gis ne daal jur gi ngeen yor ak àll bi ngeen yor ak garabi lingom yi nga xamante ne ni moom ngeen yor war ko arrosé dindal jur gi man mënoon naa jàpp fii ngeen jàpp fii ab surga laa rek bu at mi jeexee ngeen fay ma li nga xamante ne ni moom laa fi amee. ñu ne daal wax dëgg yàlla dégg nañ la sa wax ji rafet na waaye daal ñu ngi lay jéggalu daal waaw mën nañu xajal kenn suñu diggante wax dëgg yàlla parce que seytaane dafa bari doole ñu ngi doon daw seytaane. ndeysaan waa ji daa dee dem ba sori soxna seex ndaw si soxna seex boroom këram ñu ne moo ne mënoon nañ kaa jël rek de pour temps mën na am fu mu ñu féete de ay ca ñu daa dee dabu ji mu ñëw di liggéey ñoom. waaye daal seetlu nañ ne wala ndaw si seetlu nañ ne satala ga nga xamante ne nii moom la waa ji daan xëy yóbbu tool moom ak jëkkëram ñu ànd waxambaane bi dina ko root si ñetti yoon si kër gi dans la journée te satala boobu dañu ko doon yóbbu ñëwaat